votre horoscope du jour. À présent, votre horoscope du jour. Horoscope du jour. xoolal maa ngi fëgg ñaari galaw yoo xam ne mu neex ko. doxalal. allez wax leen ko wax leen ko. mais <laughs> doxalal. tey <laughs> dama koy sewal doxalal. maa ngi doxal nag mais xanaa xamoon ne man. gars yi tudd bi ñaari galaw yi est-ce que xam nga ne bëgg nañ si nekk nit des fois da ngay bëgg dara te doo si mën a nekk. ndeysaan Badou ñu ne si ñeenti di yàlla jagleelu ko ñëpp de. <laughs> yàlla jagleelu ko ñëpp tey may ta alxames wala wala kii wala muy. tey la sëdi. jeudi ñaari galon yi est na la 27 xam nga le premier mooy le kii le dimanche. weer bi sukkandaat na fi mu ne nii ñu <laughs> ngi ci ay suufalam yu mujj nga may wax ay waxul la kii laajal daaw de daaw de sa information yi ñuy jox nag ci jamono yi nii war nga cee gaaw ñu xam fi toll. <laughs> la phrase magique bokk le mot magique. doxalal voilà jërëjëf àll ma koy doxal comme ni ñu koy defee saa ne tey di at waaye may teeg laa rek àll yëpp si matinal <laughs> waaw yéen matinal bi may doxal kon ni ñu koy faral defee saa tey di alxames yemboog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ci atu ñaari junni fukk ak juróom-ñeent ñu koy dooree ci bélier yi nga xam ne dañu xaaj ci ay pàcc-pàcc lu toll ci fukki signe ak ñaar ñu koy dooree ci bu njëkk bi muy bélier yi ñoom xam nga ñoom ñoo juddu diggante ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars jàpp ñaar fukki fan ci weeru avril mu ne ci wàllu wër-gi-yaram ñoom dañoo soxla relaxation àll di relaxer di dem ci genre xeet yu neex yooyu ñu tuddee sona xam ngeen sona. wax naa la ma tudd fii. ok waaw tudd kenn xool Cheikh Faye. voilà. non fan yii sax il faut sona. sona dafa baax. Mhm. sona sona sona baax na trop donc nee na euh, yéen bélier yi dee leen dee leen def sona tey dafay nekk loo xam ne dina leen mën a jàppale mu ne ci wàllu liggéey da ngeen nekk nit ñi nga xam ne fi mu nekk nii nag ndaxawu leen pour mën a. Euh, fréquenté seen collègue yi nga xam ne ñoom ngeen ni liggéeyal da ngay dem yow kese loolu nag wóorul nit boo nekkee ci groupe ci bërëb di liggéey àndal ak waa waa waa kër gi boo demee yow kese lu la fa dal après doo ko mën a lijjanti donc kon dèjà loolu dañ ci bàyyi xel bu baax baax ci wàllu bélier yi ba léegi ñu dem ci wàllu amour mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne bu fekkee ne dañu bugg am mbëggeel bi nga xam ne wane nañ ko seen diggante ak ki ñuy nekkal dañu am audace ñëw wax ko ko buñ ko defee dinañ am li nga xam ne dañ si bëgg. ana looy xaar wax ko ko. voilà boo ko ko waxul du ko xam. ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tóoroo yi xam ngeen tóoroo yi ñoom ñoo juddu diggante ñaar fukki fan ak benn ci weeru euh, avril jàpp ñaar euh, ñaar fukki fan ci weeru mai mu ne ñoom dañ nekk ni ñi nga xam ne ambiance bi nga xam ne am na jamono yu jóge ci biddéew yi wàcc si ci ñoom dem na bay indi ay yenn jafe-jafe wala gàllankoor wala ñàkk déggoo ci seen couple loolu nag nekk na li nga xam ne dëgg la naam yaa ngi koy bañ de mais mënoo si dara parce que noonu la situation bi di demee mu ne ci wàllu wér gu da ngeen di nekk ñi nga xam ne lépp lu jëm ci excès xam nga lekk-lekk bu bëri loolu nekkul li nga xam ne gën na léegi nag ci biir loolu bu fekkee da ngay jaxase mélange lu ne nga lekk ko bu ñu demee ba ci biir seen estomac bi mun na am ay jafe-jafe parce que habit de nourriture moo si nekk ci ñi nga xam ne ñooy tóoree ba léegi seen wàllu liggéey dañu nekk ñi nga xam ne wax dëgg jamono yu ñu wees si gannaaw liggéey nañ liggéey bu foor a foor dem na ba benn moment ñoom ci seen jëm bopp sax ñi ngi xaar wa ilaa mu nekk promotion wala mu nekk ay prime yoo xam ne dañ koy jox ci wàllu koppar ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, jumeaux yi mu ne jumeaux yi ñoom ñoo judd ñaar fukk fan ak benn ci weeru mai jàpp ñaar fukk fa nag benn ci weeru juin mu ne ñoom ci wàllu mbëggeel attachement bi nga xam ne ñu ngi ko am wala boog ñu koy yaakaar mu jóge ci ki nga xam ne moom la ñuy bëgganteel loolu nekk na li nga xam ne ah dinañ ci am mbetteel de déception dinañ ci taxaw léegi nag ci biir loolu mooy nañ xaar tuuti xam nga léeg-léeg nga am benn far wala nga am benn gel boo xam ne dafay yembal dafay timide quoi nee na na nga ko génne ci gang boobu noonu parce que loolu nekkul li nga xam ne lu gën ngi wax ne eh, xeetu fecc waaw. Ah, nee na boo ko defee tey dina la dimbale de xam nga léeg-léeg nga stressé stress boo xam ne booy fecc wala nga déglu musique wala ngay kii nii daf lay da koy dindi. man dama gémeau ah, lion laa. Ah? ah dama gémeau lion laa non non gémeau yi laa dama lay dama lay jël comme ça. mais da wax pecc daa bëri façon am na blues reggaeton ndaw rabin. waaye daal pecc lañu waaye ñoom ñëpp nu ñu sant pecc lañu sant rek. Ah, mais da nga leen di wax tamit. donc ñoom ñëpp daal comme pecc lañu sant daal nee na xeetum pecc na ko def dafay baax ci ci wàllu liggéey it nekk na ñi nga xam ne yéen ci seen jëm bopp da ngeen am envie liggéey maanaam fi ngeen di liggéey si da ngeen di am mbégte bi loolu day tax ngeen mën a am ay résultat ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi xam ngeen cancer yi ñoom ñoo juddul li ko dalee ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sulet jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sulet mu ne ñoom ci wàllu euh, amur dañu nekk ni nga xam ne bu dee ne dañuy dund en couple nañ xam ne tey jii côté euh, li ñuy jege seen wàllu seen ki nga xam ne moo leen ñuy bëgg nekk na journée boo xam ne dafay nekk journée bu ñuy def ay déclaration passionnée donc loolu dafa nekk loo xam ne xam nga léegi-léegi may da nga am koo xam ne il faut nga may déclaration xeetu genre wax yu neex neexaan yooyu nga xam ne mhm. da koy jox léegi nag waaw loolu nag cancer yi tey ñooñu nañ ci taxaw ci wàllu santé dañuy nekk ni ñi nga xam ne ñoom seen jëm bopp il faut ñu découvrir avantage yu plante naturelle waaw loolu dafa baax bio plante naturelle bio gàncax gàncax tey ji cancer yi bu ñu ko jëlee utiliser ko jëlee ah xam nga man kii daa ñëw sax tey may ma naajo bi xam nga yii dafa dafa dafa dafa baax pépin naajo xam nga koy laari li mu def nii baax na léegi loolu dafa nekk loo xam ne nañ si bàyyi xel baax baax mu ne ci liggéey aussi dina am benn contretemps bu ndaw ndaw boo xam ne dafa yàq seen jour quand même donc na ngeen si bàyyi xel bu baax a baax ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy lions yi judd ñaar fukk ak ñeent ci weeru sulet jàpp ñaar fukk ak ñett ci weeru août mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne doxaankat lañ ñu jéem a wane ay ne dañoo dañ dañoo rafet. sànq Maïté dafa wax en français méngoowul ak li nga wax. li mu wax leer na mi ngi nii charmant séducteur lan la. <laughs> loolu de. Maïté loolu lan la. <laughs> séducteur mooy koo xam ne voilà. séducteur mooy lan. séducteur mooy lan mooy ki quelqu'un qui aime plaire ku bëgg vraiment. koo xam ne dafa bëgg boppam non non non. bëgg boppam non non non waaye yow ah di bëgg di séduire. ku bëgg di séduire waaw. waaw di di di di di lan wax leen. di épaté waate daal. voilà ép loolu loolu doxaan lu jikko doxaankat. Mm. Eh, léegi daal mu ne yéen lion yi doxaankat ngeen di jéem a wane serment di jéem a wane ay bogos di jéem a wane ay belfi di jéem a bandi bandi ak yu demee noonu. léegi nag ci biir loolu wax dëgg yàlla ay atu la de atu la de boo xam ne <laughs> dëgg yàlla yaa ngeen ci taxaw bu baax a baax bàyyiwul leen te nag nee na dellu doo xalaatu sa sax pour dellu ci ginnaaw donc at yooyu na ngeen ci konne dina nekk li nga xam ne dina leen mën a jàppale ba li nga xam ne da ci bëgg tey nag dafay nekk journée zéro souci. doom benn problème wala benn gàllankoor boo xam ne da ngeen ko am ci santé nag da ngeen nekk ni nga xam ne laar yi sa xeetu reetaan yooyu ngay reetaan fan yëpp nee na tey yi nañ ko def hmm, al bu ma jàngal la ko d'accord ah, du xam nga ji ma lay wax mhm. sa yooyu ngay def nañ façon reetaan xam nga yi yeex waaw jël nga xoola mu koy naj xoola xala mu koy waaj lu may doxalee dafa naa maa ngi doxal waxal yow. sa ñaari sa ñaari eh, xeetu reetaan yi muy reetaan lañ def al bàyyil di ma jéem a kii di ma jéem a jaxase kii. leen laari mu jàngal leen ko moo gën. non laa laari loolu yoonam ne aussi ma am sama ñaar jabar laari leen jàngal pour la waaye yow mu ne loolu dafa nekk li xam ne nañ si bàyyi xel bu baax baax ci wàllu travail aussi dañ nekk ñi nga xam ne nee am nañ tuuti patience c'est pas la peine ngeen ni yàkkamti par rapport ak euh, résultat yi nga xam ne dañ ko bëgg kuréel kuréel wala ñu ci taxawee tuuti rek di ngeen si am ndam ñu dem ci nga xam ne ñoom ñooy vierge yi juddu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sattumbar mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne ci wàllu amour bu ñu xoolee tuuti daje ngeen ak ki gën ci yéen loolu baax na léegi nag jarul ngeen ni réfléchir doxal leen li nga xam ne mooy li pour ngeen mën si am ndam. mu ne ci wàllu santé da ngeen nekk ni nga xam ne am ngeen résistance physique ser mais amul benn jafe-jafe wala gàllankoor moom da si nekk léegi nag ci biir loolu àll bu fekkee jël nga tuuti ay kilo ah baax na mais bàyyi si xel parce que c'est un peu dangereux quand mu ne ci wàllu liggéey da ngeen nekk ñi nga xam ne def ngeen preuve de rigueur maanaam indi ngeen xarañte bu baax ndam def si taxaw ba lépp li nga xam ne da ngeen ko si bëgg dafay nekk loo xam ne luy am lay doon ñu jàll ci ñi nga xam ne ñooy balance ñoo judd ñaar fukk fan ak ñeent ci weeru sattumbar jàpp ñaar fukk fan ak ñett ci weeru octobre mu ne ñoom ci wàllu amour ñenn célibataire yi am wërsëg dinañ dal ci ab kuu tey dinañ dal ci ndaw soo xam ne mbëggeel day dox seen diggante mu mel ni nag dañuy ibbi page bu bees ibbi histoire bu bees ci wàllu amour bu fekkee dangeen nekk ci ay couple nag yéen seen jëm bopp éloignement boobu amoon seen diggante ah na nekk li nga xam dafay jeex ngeen commencé di dajewaat ci wàllu santé da nekk ni ñi nga xam ne bu fekkee ne yéen seen jëm bopp fan yi wees suñ ginnaaw da nga jàppoon ne nekk woon en forme affaire bi jeex na ba di nga commencé di santiraat sa bopp carrément ci wàllu liggéey nag mu a ñoom dañ nekk nga xam ne euh, seen travail daf leen di exiger actuellement pour ngeen am benn esprit ah esprit de de de esprit positif waaw loolu dafay nekk li nga xam ne Cheikh Faye moo fës noonu Cheikh ñu jàll ci scorpion yi mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne bu ñu xoolee tuuti euh, pour ñoom ñi nga xam ne ay célibataire lañ da ngeen di ñëw dugg ci benn phase de remise en question ci seen vie amoureuse ci biir loolu nag ah di nga am ay rencontre yu bees yoo xam ne doo ko doon xalaat di nga ci am li nga ci bëgg ci wàllu santé mu ne fexe leen ba ngeen évacuer lu mu gën a gaawee angoisse bi nga xam ne da ngeen ko am. wala stress bi nga xam ne da ngeen ko am bu génnee rek di ngeen gis ne di ngeen ko lool nag lu koy waral euh, mayte nee na. Mhm. nga dem def natation fay. ok waaw fay moom daa baax ci nit ñi surtout scorpion yi tey ci wàllu liggéey nag da nekk journée boo xam ne dafay commencé wu. Euh, ci yéexantu daal affaire yi du gaaw ni mu buggee yu demee noonu dafay nekk loo xam ne luy ñëw jeex lay doon ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaire yi juddi ñaar fan ak ñett ci weeru novembre jàpp ñaar fukki fan ci weeru décembre mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne ci wàllu santé tey day nekk journée boo xam ne c'est un peu stressant certes waaye nag bu ñu xoolee tuuti nee na jël leen air dem leen côté géej ngeen xoo bref brise bi dafay nekk loo xam ne leen jàppale seen wàllu wër ci wàllu liggéey nee na problème yi nga xam ne am ngeen ko mu nekk ay problème personnel yoo xam ne vraiment yéen seen bopp la warul mun a tax ngeen sëngam ci seen wàllu liggéey am leen beneen taxawaay di ngeen gis départ bu bees ñëw ci wàllu amul it da ngeen nekk ni ñi nga xam ne yaa ngeen ñu bëgg set indi jàmm seen vie de couple waaye relation yi nga xam ne dangeen ko am ci biti maanaam di jàdd ay góos dafay ñëw dugg ci seen vie sentimentale tey jaxase kart gi kon dèjà loolu na ngeen si bàyyi xel bu baax a baax ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy capricorne yi judd ñaar fukk nag benn ci weeru novembre jàpp ñaar fukki fan ci weeru décembre mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne ñi ci nekk ay célibataire am na dëgg la naam ay rencontre maanaam tase wala euh, relation yu bees yoo xam ne taxaw na ci seen kanam loolu nag dafa nekk li xam ne bu ñëwee baax na ci biir loolu nag dañuy gis ne relation amoureuse yi nga xam ne da ngeen ko am li ngeen ciy bëgg dafay nekk loo xam ne luy jàppandi lay doon ci biir loolu it ci wàllu santé mu ne na ngeen changer seen xalaat changer seen activité yi ngeen di def te jéem a def une activité sportive dafay gën ci yéen ci wàllu liggéey aussi ñuy xool ne yéen seen jëm bopp di ngeen mën a am forcé bunt yi pour nga mën a am ndam par rapport ak li nga xam ne da ngeen si nekk ñu jàll ci ñi nga xam ne ñooy verseau yi ñoo judd ñaar fan ak benn ci weeru janvier jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février mu ne ñoom ci wàllu amour dañuy nekk ne ñi nga xam ne nañu xoolaat taxawaay bi nga xam ne nañ ko am nañu xoolaat la xam ne dañ ko doon doxalee te xam ne amour du ndox mu sedd saa yoo neexee naan rek wala dugal ci frigo wala génne loolu mënul nekk. kon amour lan la amour kenn da nga koy teg ci yoon laal. ci temps teg ko ci temps moom moo la ciy génne ci wàllu santé bi mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne dañu soxla ku leen secouer pour ñu mun a amay activité physique comme léeg-léeg tey jii nit wala sonn mais ñu koy jàppale wala di ko pousse bu mu dem dafay activité loolu dafay baax ci wàllu wër gu ci wàllu liggéey it dañuy nekk ni ñi nga xam ne moyens yi ngeen war a jox seen bopp pour mun a réussir li nga xam ne si ngeen nekk pour mun a am ndam fi ngay liggéeyee joxuñu la ko c'est pas une raison pour ngay décourager na nga continuer te xam ne nànk-nànk rek moom mooy indi affaire jàpp golo ci ñaay ñu dem ci signe bu mujj bi ñoom muy poisson yi ñu judd ñaar fukki fan ci weeru février jàpp ñaar fukk fan ci weeru mars opportunité professionnelle yu am solo day taxaw ci seen kanam nañ ci jublu ñu taxaw si ñu jël ko décision yi nga xam ne ñu ngi ko jël mu war a dem ci seen cadre professionnel jarul ñu ko yàkkam nañ ko togg ba mu ñor ci wàllu santé bouger leen jóg leen ngeen dem ngeen daw dafay activité ñaq ñaq dafa baax ci nit ndax mu mun a génn xorom bi nekk seen biir yaram toxines yi également mun ko éliminer. Mm-hmm. ci wàllu travail euh, wàllu sent euh, sentimental la pluie. c' est le beau temps c' après coow li ngeen amoon ci seen vie sentimentale fi mu ne nii affaire yaa ngi commencé di rangé wu di jaar yoon léegi nag ci biir loolu yéen ci seen jëm bopp artifice yooyu nga xam ne taxaw na ci yéen foobu gras boobu nga xam ne nekkoon seen. jeex na ba ndox mu set di ñëw kon mu nekk loo xam ne tey journée bu ama am solo lay doon sur le plan sentimentale ci poisson yi àll mu nekkoon ci fukki signe ak ñaar yi li nga xam ne waxoon nañ leen ko di am yaakaar ne liñ leen ci wax di ngeen ko xool mu dimbale leen ci seen journée wu tey waaw Seydina looy tàggoo il est 8h55 fii si 99.4 la première radio digitale du Sénégal King FM. di tàggu ñëpp di leen jox dig daje incha allah rubi suba ci seen beneen euh, matinal di gërëm euh, ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci partie technique bi Daouda ak Cheikh Faye di leen ziar ba